waaw ah, asalaamaaleykum waa mbokk intro Dakar Midi ñoomati mbégte ak kontaan naa la ne demee saa su ne dañuy obligé def ay émissions yoo xamante ne di dalal ñi xale yi nga xamante ne ci mbirum tàgg yonent bi ak ay jànkat ñu ngi toog tey naa la Sëñ Saliou Sëñ Saliou te nag mu am ay événement boo mu koy dëgmal le 25 juin foofu ay cant yu am solo ay cant annuel yoo xamante ne tey naa di invité ñëpp nag di invité Sénégal gi yëpp képp ku ci mën a ñëw ñu ngi la ci invité ñu ànd ceeg moom di ko bàyyi mu présenté wu ak ñi nga xamante ne ñooy mbokk internet Dakar Midi ñu ngi lay nuyu. auzu billah bismillah inna walil yàlla rabbi sahli sadri wasir li amri waxlul xoqdatan min lisaani yatfa xawli gannaaw ba nu sante yàlla julliti yonent bi di sant suñu ñaari waajur di ñaanal Serigne Mountakha Bassirou xalif général kullu murit yàlla yàggal ko fi te wéral ko naka noonu la ñuy ñaanalee Serigne Cheikh Jëmb Fall yàlla yàggal ko wéral ko naka noonu la ñuy ñaanalee sunu Serigne Serigne Mamor Mbacke mu suñu yàlla yàggal ko te wéral ko di nuyu baax waa àdduna di nuyu waa Sénégal di jiital ci bi sama wajuru jigéen. yàlla yàggal ko fi téeral ko noonu sama wajuru góor yàlla yàggal ko téeral ko di leen siyaar waa Dakar Midi ñu jëm ci événement bi nga xamante ne mooy le 25 nga dégmal ko fas yéene ko def fi nga xamante ne mooy ginnaaw raay euh, bi mooy mhm. waaw bii mën naa ne waaw mooy première édition bi ñu koy defee fii ci ginnaaw raay en face tali bu xonk waaw muy bisuk sant yàlla nag bis boo xam ne bisu sant yàlla ndax bis bi daa am lu ko sabab sabab bi mooy waxtu yi daaw suñu borom daf ñoo tegoon nattu muy ak tawat. amaana ñiñ nekkaloon loolu foofu yëpp ci hôpital ba suñu borom daa ñiñ bokkaloon sàll yàlla dafa dogal ñoom ñëpp dañoo wuy ji waaw ah, ñun mu defal ñu taw tawfeex mu fekkaat ñu fi ñu ne nag dañ koy woote ak sant yàlla waaw te sant yàlla gi nag dañ cee lott lool di ci woo jullit yëpp di ci woo waa àdduna bi yëpp pour ñu ñëw sant dama yàlla looloo sabab bis bi mhm. ñëw bis bi def ko tuddee ko bis bi nga xamante ne tey mooy mbirum sant yàlla parce que heure daaw dafa am loo xamante ne daloon da nga nekkoon ci dal hôpitaux ba ay nga am xol ni da ngay retourner bis boobu noonu nga def bis bi nga xam ne mooy sant yàlla mm-hmm. bis bi maanaam loolu mën naa ne not not la bu nu yàlla teg rek muy ak natt muy ni ko Cheikh Moussa Ka di waxee rek waaw bur yàlla xarit bëri musibaal ngir dara jaal ko mbaate muy ku muy daane la yàlla jox ci xarit ba ci maqaam mënu koo jëf natt lañ koy xaymaam daane bala laa wóolu ba jox la mbir ya faaw nga aw ci tànki mbir ya waaw te nag yàlla daf ne nag waaw te dañ ne ku sant ñu dolli la moo waral ñun ñu ne bis bi nañ ko def bisu sant yàlla ngir tawfiix ji ñu defal muy maanaam suñuy morom lañ fa nekk noonu ñëpp ñu bokk même tawat bi ñu dal suñu borom dogal ci ñoom li mu dogal muy jëlee leen fi yóbbu leen barzax man mu defal ma tawfiix ma ñëwaat dellusiwaat moo tax ma ne naa ko sant ci bis bi waaw te sant gi dama cee lott lool lool lool sax moo tax ñu ne nañ ko def bisu sant yàlla woo ci jullit yëpp ñu sant ma yàlla loolu moo sama bis bi. aussi yéen ànd ñoo xamante ne tey say kilifa lañ wala ñoo xamante ñoo si jàppale si li nga xam ne waaw waaw waaw ñoo ci àndandool kay mooy waa àdduna ñëpp rek waaw di jiital samay kilifa waaw ñoo ci jiitu waaw samay ak sama ñi nga xam ne ñoom laa bokkal ndey ak ñi ma bokkal baay. ak ku ci mel ni sama yaay Rayaane Diouf nga xam ne moom mooy sama yaayu bopp hmm? ak ku ci mel ni Seydina Alioune Afio mi nga xam ne maanaam mën naa lii lépp moo ko waral muy sama jëwriñ nga xam ne moo ñuy moo ñu tette teg ñu ci yoon wi waaw ba ba tey suñu borom def lii waaw di ci woo àdduna bi ñëpp rek waaw ak mbokk yeeg ñëpp sama doomu baay yeeg sama mag yeeg sama waa koñ ak ñëpp daal bàyyiwuñ kenn. nga duggee si si quartier yàgg na wala yàggul. Zikrullah bi ñu ci duggee mën na yàgg na yàggul parce que 2010 lañ dugg ci Zikrullah waaw ci lañ ci dugg maanaam dekkandoog suñuy jëwriñ ku ci mel ni Aliou Afi wala ñoom Galas Mbub ñoom lañ nekkandool ñuy tette ñuy teg ci yoon ni ba yàlla dogal tey lii mu dogal ci ñun ñu nekk ay tuddukati yàlla. def ci single bu yàggul dara muy ci weeru koor gi jàll way ci maam Cheikh Ibrahima Fall moom mi nga xam ne mooy bunt yoon bi di Babil Mouridina waaw moom noonu noonu daal la demee. <laughs> ñu gis euh, ñi nga xamante ne te mooy jàngkat yi sikarkat yi bari nañu ku nekk xëy na am nga benn relation ak ak ak ay sikarkat tey si événement boobu ñu ngi si invité tey si niki mel ne ay sikarkat ñu ñëw tamit si bis boobu. Mhm. ndax amaana ku xam Saliou Ngom moom xam relation moog sikarkat mi xam ne jàmm rek la siq ak ñoom. waaw muy maanaam ñoom ñëpp ñu nekk samay waay maanaam mën naa ne ñu ci ëpp sax samay samay kilifa lan waaw samay samay baay lan Euh, li ma séq ak ñoom moo waral ñoom ñëpp invité naa leen bàyyiwuma kenn sigaarkat yi ñëpp ñëpp bàyyiwuñ kenn waaw ku ci mel ne Aliou Afia moom mun naa ne sax ci yëfi la bokk sëñ Galas Mbuub Alpha Mandiaye Fall Mourtala Mbaye murid yëpp rek sigaarkat yëpp rek ñoom sëñ Pape Faye gaa yëpp rek bàyyiwuñ kenn waaw ñëpp daal incha allah dinañ dinañ teew ci bis bi incha allah. moo la gën a neex si sigaar si tey ba nga xamante ne tey lii neex na la ci sigaar si. ah Zikroullah téye bi may téye micro di tudd yàlla di ko yëg sama biir xol bi waaw loolu doon na lu ma neex lool lool lool lool sax waaw neex na mu trop. Hmm. des fois nag gars yi boole ci si da nga gis sa tëgg bi rek day xaw a maanaam day xaw a zaahiri trop daal. Hmm. ah <laughs> waaw mais waaw loolu moom mënu cee ñàkk waaw mooy ne ko sëñ Fall doon waxee sëñ Ablaye Niang rek ah astaghfirullah sëñ ab sëñ Ablaat sëñ Ablaye Niang bi muy jàng di ci kii mu ne ko Ablaye Niang wax ko ni ko sëñ Tuubaa waxee daan na ko li koy neexal mi ngi ñëw ci kanam. waa mun naa ne app bi nag daa jot mooy gars yi ñu ciy def ñu di ko neexal rek waaw mooy li sama waaj ji di wax naan di tuubal air yi rek <laughs> di di di di def yenn yi rek noonu la demee rek waaw loolu kese la rek waaw. nekk réew moo xamante réew mu jeune eh, réew moo xamante na jeunesse bari na ndaw te ku nekk ndaw ñi ku nekk ñu ngi lay dégg ci yeneen ak yeneen yéen ngi nekk ay ndaw ngeen teel a tàggat seen bopp ci li nga xamante ne mooy di sàbbal ku tedd ki. waaw loolu dëgg la ndax. mooy li ñuy wax rek yàlla moom dafa bëgg ndaw liy jaamu yàlla waaye dina rëbb it mag muy mooy yàlla ñun moom dañuy sant yàlla amaana mun naa ne sax du nekkul suñu njàmbaar waaw tawfiix bi ñu sëriñ bi defal la muy ñu tàggat ñu ci li nga xam ne mooy tur yàlla ak jàng xasaayit ndax ñun bi ñuy nekk ndaw dañuy jàpp suñuy loxo di ñu yóbbu daayira maanaam daayiru kuréel ñu nekk ci maanaam daan ci teewlu di ci tàggat suñu bopp ba yàlla dogal mu mu demee ni ñu nekk ay ñu nekk ñu nekk ay ndaw nekkut nekk ay tuddukat yàlla waaw wér na loolu nag mooy li may wax rek saa su ne du nekkul suñu njàmbaar waaye tawfeex bu ñu sëriñ bi defal la waaw ndax si naan sëriñ bi moom ay ay moo koy tànnal boppam waaw noonu la demee rek waaye du suñu noonu rek la demee waaye du suñu njàmbaar waaw. ci diggante ki nga xam ne mooy Aliou lan la seen diggante yi ñaar. Ah, Aliou moom day sama mag waaw day sama mag mun naa ne sax ñoo bokk ndey ak baay kon mun naa wax lu mun naa ne ñoom bokk ak baay day sama mag ñu yàgg lool di mi ngi nekk tout tànk maanaam mun naa ne sax moo ñu tàggat ci tur yàlla yi waaw ñu ànd fu baree bëri dem fu ne nag mu yóbbu ma fu ne ci Sénégal. génne na ma sax frontière ñu dem fu baree bëri ñu ànd di yëngu ci wàllum tur yàlla bi may teg ci yoon di ma tette mu nekk ku baax nit ku baax ku ma xam maanaam présenté na ma ko. wóor na suñu tubaab nit ku baax ku ma xam président maanaam fu mu dem sax di ma président danaan kii sama rakk la bokk ndey ak baay te noonu sax la demee maa ngi moom ñoo bokk lépp muy sama xarit muy ku baax di ko ñàkki ñaan di ko ñaanal yàlla suñu borom yokk ko ci sukkur laa bi wéral ko doole sëñ Tuubaa gis réew mii nga xamante ne mooy Sénégal bokk na ci réew mi nga xamante ne dañuy xeex mbiru mu góor jigéen xam nga yéen seen taxawaay ci loolu yéen en tant que Baye Fall yi loolu kay moom mooy comme ni ko gars yi di xeexee rek ndax ñëpp xam nañ ne maanaam tur yi sax daa xaw day waar maanaam borom ñaari tur yi moom ñëpp xam nañ ne waaw baaxul waaw baaxul moom maanaam di di di di ñaan yàlla suñu borom jëlee rek ñu dem maanaam fu kenn xamul rek waaw ndax loolu moom baaxul yàlla na ci yàlla musal waaw ndax maanaam doon góor yàlla ni mu neexee waaw nga bokk fi dem maanaam di jëf naka sa loolu noonu moom loolu yàlla na ci yàlla musal. waaw moom daal doy na waar daal yal nañu ci yàlla musal te jëlee leen fi barke yonent bi. <laughs> lan ngeen soññu mbokku taalibe yi. ah mbokku taalibe maanaam di leen soññu ngir maanaam ñu gën a góorgóorlu rek gën a jàpp waaw te xam naa jamono ji daa toll foo xam ne daa xaw doy waar ngir lu fëkk maanaam nit dafa dafa dafa yomb waaw ñun dañuy góorgóorlu rek te xam na maanaam fii jëf ju baax rek am solo waaw lu waaye jëf leneen lu baax moom yaa ngi nax sa bopp. barki jëf ju baax rek am solo da yéenante jàmm lu waaye yéene sa bopp nga yéene ko ñëpp bu ñu ko defee incha allah dañ ñaan hmm. ah li ñaan mooy Sénégal li ñaan mooy yàlla def fi jàmm mu nga xam ne dëkku jàmm la dëkku teraanga dañuy ñaan saa def fi jàmm maanaam yàggal saxal fi jàmm mu jëm kanam maanaam ah, li fi newoon nag loolu mën naa ne ni ko suñ muntaxaa di waxee rek mission bi mu doon dox la yàllaa ko yowal muy dox mission bu matalee day dem loolu la rek waaw ah, loolu mission boo xam ne natt la boo xam ne suñu borom moo ñu ko tegoon dan danañ koy nangu nag saa bu ko soobee rek mu jëlee ko fi waaw noonu la demee di ñaan nag Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg waaw di ñaanal kilifa diine yi yàlla nañ fi yàgg lool teer maanaam seen nekk fi ak njariñ la fii waaw boo gisee tamit euh, ku nekk bis bu nekk am nga ñoo xamante ni ñu ngi siy jàppale tey tey ñan ngay woo ak fan ngay commencé sa woote ak far ko jeexale tamit parce que bu nga Sénégal yëpp wuy si la ci li nga xam ne mooy bés boobu noonu mooy le 25 nga ñu pour ñu sant la li nga xam ne mooy suñu borom loolu nag jar naa ñëw nag sant suñu borom moom loolu ku ne jar ñëw waaw moom war maa ngi ci jiital maanaam fi ma dëkk rek sama dëkkuwaay muy ginnaaw raay gi nga xam ne fa juddo juddoo fa yaroo muy sama base maa ngi leen di jiital ci woo bi di woo maanaam waa cité 1 cité 2 3 waaw woo waa tali bu bees sama dëkk bi ma bi nga xam ne fa dëkk muy ndaayaan waa Thiès mbuur Kaolack ñëpp rek waaw di woo ñëpp waaw di di maanaam woo nañ ñëpp bàyyiwuñ kenn waaw ndax bis moom bisu sant yàlla woo nañ ci ñëpp waaw maanaam di ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy ñoom maanaam ñoo ciy jàpp bis yooyu noonu parents yeeg marraines yi ñoom ñëpp ñu ngi leen ciy woo ko ci mel ne Cheikh Abdoulaye Diop xaas euh, raxam Pape Sène Dame Fall mm, euh, maanaam ku ci mel ni soxna Ndeye ko daan ñëpp rek wuñ kenn waaw bàyyiwuñ kenn ñëpp ñëpp rek bàyyiwuñ kenn bu ñu limee sax dañuy juum waaw muy Modou Ndiaye ak gaa yëpp rek bàyyiwuñ kenn daal Isaaxa Diop sunu maire Pape Ndiame ñëpp rek bàyyiwuñ kenn waaw ñu ngi ñëpp bu ñu limee dañuy juum. waaw ñu ngi amati mbégte kontaan te xam naa ñu ngi si jeexalu émission bi di la wax lan ngay tàggatoo ak ñi nga xamante ne mooy mbokku internetu Dakar Midi. waaw li ñuy tàggu ci ñoom mooy di sant tey gërëm rek yéen waa Dakar mi di leen sant leen gërëm yàlla na yàlla yàggal leen te wëral leen ndax noonu it la ñuy sante maanaam fii nga xam ne fi la ñuy def émission bi mu borom kër gi di suñu yaay Rayane ne man mooy sama yaayu bopp wër na suñu waa ñun suñu kër boo fa ñëwee di ma fa dañ naa la dem leen dem leen dem leen ko fi mi ngi seen kër bu ñu nee fi seen kër ñu ne kër kër mère Rayane Diouf fa la dëkk muy sama yaayu bopp maanaam yërëm njaboot gi uuf ñu waaw yamalewun ak dara di ko ñaanal yàlla yàggal ko ba mu fekkee njariñ lépp barki yonent bi naka noonu la ñuy ñaanale sama ki nga xam ne mooy sama yaay bopp muy Aysatu Fay maanaam nga xam ne liggéey bi lii lépp moom la di ko ñaanal yàlla yàggal ko ci wéral ko suñu borom fanam mu yàgg yokk wér ci barki yonent bi waaw yéen waa Dakar Midi ñu ngi leen di sant leen gërëm waaw di siyaar bu baax sama groupe bi nga xam ne ñoom lay àndal di maanaam nuyoo bi dama koy jël teg ko ci loxo Abdoulaye Ndiaye rek moo xam ne moom mooy seen jëriñ baaxkat yi ñoom ñoom rek laa la laa jël ñëpp di ko teg seen loxo mu mu jotale ko gaa yëpp di sant bu baax tey gërëm barki yonent Ah, jërëjëf euh, sëñ bi ah, kaddu yi am na solo lool ah ñu joxante dig daje incha allah le 25 fële nga xamante ne tey mooy ginnaaw raay le 25 bi ñu ñëw sant la ki nga xamante ne mooy suñu borom te yàlla nañ si yàlla yóbbu ñu ak jàmm yàlla wéral cër yi yokk mënul bi gën a baat bi ba bis ba dara bañ ñu bokk internet bi Dakar mi di jërë ngeen bi nga xamante ne dox si jeune talent dox si lépp loo xamante ne ku nekk ci liggéey yëngu dañ la seeti yow jërë ngeen jëf merci beaucoup sant sama cadre bi nag Basirou Diouf <laughs> jaajëf xas